asalaamualeykum mbokk yi safoo di seetaan Dakar Media TV man Diaw seen xarit ma dellu waat fii ñëw a ah, ki ma dalal tey nag mooy sëriñ Cheikh ñaan di sama xarit ndeysaan ñu yàgg lool Serigne Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar Serigne damay ñëw ak yow si seetu rawxaan ku wax seetu rawxaan nag ah man damay teg vaar <laughs> dafa mel ni y' a ci ans si ginnaaw neewoon nga usman Sonko pour mu doon président du yomb. Ousmane Sonko pour mu poser candidat du yomb du yomb yaa ngi ko defee woon Dakar instant il y a deux nii moom. Hmm. mën naa doon président mais du gaaw de. du gaaw lu tax. gaaw de mën naa am tur mën naa am lépp ci àddina mais pour le moment pour mu doon président moom Ousmane Sonko. Hmm. loolu da nekkul loo xam ne li gaaw la. lu war loolu nga wax boobu wax ñu dellu si waat nga ne Modou Lo dina daan ki nga xam ne mooy Boy Niang jël bu yomb xaw ma jël bu gaaw ni nga ko waxee woon. lamb ji day gaaw du taxaw day gis na lamb ji lu ci ëpp lu ci ëpp jàppante kay jàpp fee kay jàpp fee day doon lamb ju gaaw a gaaw joo xam ne boobaa Modou Lo mën naa am victoire bi insha waaye boobaa moom ci boppam moom Modou Lo na xam saraxu. Ah, sëriñ bi dama bëgg nga wax ma seetu rawxaan mooy ban façon set bisimilah. alhamdulilah. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah maa ngi leen nuyu di la ziar di ñaan suñu borom subhanahu mu def jàmm am Sénégal. yàlla na Sénégal sax si jàmm bismillah sëriñ bi ñu ngi lay déglu. sëñ Cheikh. Ah. Euh, dama si seetu rawxaan lan mooy seetu rawxaan. Euh, alhamdulilah euh, listixaar dafa am. Hmm. seetu rawxaan am. mooy lan léegi listixaar seetu rawxaan ki nga ko defal mooy ki nga xam ne dafa nekk ci biir réew mi di réewum Sénégal kooku la ñuy defal seetu rawxaan doomu aadama bi nga xam ne dafa tukki kooku kenn du ko defal kooku kenn du ko seetal ba gis ko nit mënu koo seetal ba gis ko. nit mënu koo defal euh, listixaar bëgg dañ ko defal listixaar lu ñuy wax listixaar rawxaan parce que dafa tukki gisa doomu aadama bu tukkee mënu ko defal lu ñuy wax listixaar dañ ko defal wax ñuy wax listixaar rawxaan bépp képp koo gis mu tukki ab sëriñ defal ko ab sëriñ defal ko seet wax ko sarax yam gis ca seet ga wax ko ñaan yam gis ca seet ga boo ko ñaanalee du gis dara boo ko defalee seet du gis benn résultat nit ñu bari tukki nañ di ñaan ba bañuy dee du gis benn résultat dama lay wax loolu fan laa ko teg ak fan laa dama gis ne lépp loo gis ci àddina rawxaan la hmm. léegi li nga xam ne moom nga jël teg ko pour nit ñi seetaan ko dinañ xam ne rawxaan mooy lu wér rawxaan mooy dëgg léegi doomu aadama bu tukki bul jàpp ne moom fa mu tukki rek fa la war a mën a amee alal wala bul jàpp ne sangat moo war a tax ma mën a ubbeeku wala bul jàpp ne sarax moo tax mu war a ubbeeku ki maanaam ki tukki lan moo ko téye d'abord léegi bu fekkee dafa tukki ci at moo xam ne at moom ma nekkul atam nag wala at moom ma atum gaaf la nag kooku bu ci tukkee du am du ci mën na faa liggéey ba dee dafa am benn dafa am dara yaa ngi dégg léegi ku tukki nag ñett yi mooy sa sabab nga tukki des fa nga xam ne da ngay faatu ñu indiwaat la Sénégal wala nga tukki di dem ak ñëw te doo yor lu dundalee sa njaboot mm-hmm. wala nga tukki te doo mën a ñëw di dundal sa njaboot ñett yi mooy tu ci tukki yaa ngi dégg loolu lépp dafa dépendre ci nit ki ban weer la tukki ak ci ban at la tukki ak ci ban bis la tukki nit ki am na ci at yoo xam ne boo ci tukkee doo am dara sëriñ bu la mën di ñaanal doo gis benn résultat foo nga génn waat saraxo at ma nga tukkee woon mm. ki am na ci weer yoo xam ne boo fa tukkee benn benn sëriñ mënu laa ñaanal ba gis benn résultat foo nga génn waat saraxu weer wa nga tukkee woon mm. parce que loolu du sangat du sarax du xalwa du kurus du dara mm. parce que at ma nga tukkee moom moo la tëj te loolu sëriñ su baree bari xamuñu ko nit dina tukki ci bis bis ba mu tukki mooy waral yàqu-yàqu yëpp am kon léegi rekk buy tukki war naa xam ci ban at lay tukkee ak ci ban weer lay tukkee loolu moo sabab saxaar ruuxaan nga xam rekk bu ñëwee day foto ñaari loxoom yónnee ma billaahi ma wax ko lépp àddunaam dinaa la wax ki la liggéey wax la fan la dëkk wax la yi ñaar lan ngeen jotee ci àdduna wax la fan la suul liggéey ba booba li saxaar gi da koy génne léegi dañuy wax seetu rawxaan da ngay foto sa ñaar loxo yi sa tur sa turu yaay sa turu baay moom laa soxla ba jox la say résultat boobu mooy seetu rawxaan mooy seetu rawxaan dama bëgg lépp li ñuy waxtaan ñu teg ko ci xam-xam bokk ko ci xam-xam mm. gis nga ba ilaa yow mi abat mm. sëriñ du la wax li man a dégg doomu aadama bu tukkee mm. man nga koo defal façon sangar gu ne man nga koo ñaanal ci lu nekk man nga koo saraxel lu nekk waaye da ngay gis ñoo xam ne naan sangu ba sonn amoo benn résultat ñii naan la man laal ku laal na ma kuréel su ne gisuma benn résultat. Mm. fekk na at ma moo ko tëj. Mm. léegi nag li si léegi nag li sabab rawaxaan bi. Mm-hmm. ma nga xam ne maa ko tuddee li saxaar rawaxaan. Mm. xam nga dëkk boo gis ci àdduna am na rawaxaaniya. waaye léegi dëkk moom rawaxaanam ak rawaxaan dëkk ba may dem. Mm-hmm. est-ce que ànd nañ léegi loolay problème bi nag. <laughs> bismillah. léegi léegi rawaxaaniya. Mm-hmm. Dakar gii am na rawaxaan. léegi rawxaan bi am na sarax léegi nit kii moom bu fekkee dafa tukki dem dëkkub jàmbur dem nga ne falaa la force damay am dama fa am alal am fa njaboot di dem ak ñëw te génn woo saraxu rawxaan dëkk ba nga nekk nag léegi bi moom bëgg na yow da la sa saraxu rawaan génnee la sa nangam ak sa nangam ak sa nangam génnee la sa nangam ak sa nangam léegi kooku nan lay sotte te fekk ne rawxaan ba moo koy fitnaal am na ci at yoo xam ne at yi coow la nit ki bu ci dukkee dina am coowal jabaram foofu wala mu am coow ci tribunal foofa wala mu am coowal papier wala ñu génne ko kër ga wala fu mu luyee kër ga mu luyee dafay am ay coow à chaque fois ba kër ga muy génn parce que euh, at moom euh. tukkee may atum coow wala weerum tukkee may weerum coow nit am na fu mu may wooyee ci weer wi dinaa xam aajoom dina faju wala du faju dinaa ko defa li saxaar raw xam dinaa xam ba xam day dund wala day dee bu doon neexee lépp ñu teg ko ci xam-xam hmm? du ma wax rek yem ci nii résultat laa indi preuve. li si xaar dama ne ya si xaaraw lépp lu ma la wax ci àddina. tagal ko nit ñi ñu gis ko. man kay damay dem faar man kay mm. baax na lépp Ousmane Sonko. baax na am na pouvoir ni mm. waaye pour mu doon président du gaaw. li maam li si xaar raw xaan raw xaanam laa jël. Ah. xam raw xaan bi fan la toll moo tax ma wax loolu. Mm. yaa ngi dégg maa ngi lay naan la Modou Lo ak Boy Niang maa ngi naan la day gaaw lamb jooju du taxaw day gaaw kii mën naa jàpp fii kii mën naa jàpp fii waaye lu mu yàgg-yàgg mun loo may amaat victoire bi loolu foo ma ñëwaat na la mun loo ci boppam at mi nekk nii atam la waxuma la sax làmb waaye lépp lu mu sàkko daf koy am loolu man loolu man maa ko wax léegi loolu may waral rawxaan bu ñëw ñu jël ko tegaat ko sëriñ bi du ma la loo xam ne tiibu nafsi la wala loo xam ne ay nit ñoo may kii dama la loo xam ne xam-xam la te dara du gis nga doomu aadama bu mu mën di doon ci àddina mm-hmm. boo foto sa loxo bi yónnee moo xam ne sa léppi àddina ak ku mu mën di doon ci àddina yow fotal sa loxo nga yónnee ma dinaa la wax bu la liggéey dinaa la wax liggéey bi fan la nekk ak fan lan ko suul ak lan moo koy toj ci ban makaan la bërëb bi nekk ak la liggéey bi nekk carrément. loolu mooy seetu mooy non dafa am lu ñuy wax seetu rawaxaan. Mm-hmm. am na ñuy wax listixaar rawaxaan. d'accord bokkuñu. boo ma joxee sa tur. jox ma sa turu yaay nga nekk ba bitim réew mhm. dinaa la woo quatre heures du matin wax la sa résultat yëpp ak lépp doo jàngonteel hmm, d'accord léegi nit ki li ko tëj laa bëgg ñu ñëw ci d'abord doomu aadama lan moo ko tëj mhm. ak lan moo koy yàqal ak nit ki lan moo tax affaire mu mënul dox ak nit ki lan moo tax muy sango ba sonn du gis benn résultat mhm. loolu laa bëgg ñu ñëw ci bismillah loolu mooy sama deuxième xam nga dafa am lu wax rab am lu ñu wax faru rab am lu ñu wax caru rab am lu ñu wax ngalawal soyaatiin ngalawal seytaane léegi nag rab léegi ci nekk nit ki ban façon rab la amee lii moo jot a laaj nit ki dafa am rabu cosaan wala nit ki ci boppam moom dafa am rab boo xam ne rabam la spécial rabu jullit wala nit ki ci boppam moom rabam turam ak turu yaayam ci rab boobu ci rabaayini ko wala nit ki ci boppam moom kër gi mu dëkk moo am rab bu fa nekk boo xam ne dafa yàq mhm. walla moom dafa tuxu ci quartier bu mu warul tux nga sëriñ sépp maasnero di la sang mhm. waaye la yàqal mi ngi ci kër ga kër ga moo am rab boo xam ne kër gi amuñ lu lekk histoire bari na fa ku fa sangoo saafara doo gis parce que la yàqal ci kër gi la nekk noo li sa xaaraw képp <laughs> kon lépp da ngay dellu si listixaaru rawxaan lépp da nga ko jëlaat demaat ci listixaaru rawxaan moo tax nit ñi ñaanu naan ba sonn mm. amuñu benn résultat waaye nit ki léegi yow li la yàqal fu ne est-ce que nekkul ne takk jabar joo xam ne raw rabam ci boppam mu ëpp doole sa ba tax ne moo lay yàqal ba tax na saafara soo laal doo ko gis am na ñoo xam ne bu leen bu adduna bi yëpp marché ji lañ naan du nga résultat parce que li leen di yàqal mi ngi ci biir kër gi mais lu ci mën di kaa am photo sa loxo yónnee ma billahi boo ko ma nga juddoo ba ni ngay màggee lépp lu la nit mas a def mhm. ki nga jotee liggéey bu ñu liggéey fu mu ko sul mhm. mu wax la lépp bi euh, li ngay faral di def maanaam da koy génnloo sarax wala ay sangaat nga koy dama la bëgg wax loo xam ne xam-xam la mooy la loo xam ne bakkan la wala ay wax damay damay bëgg di wax loo xam ne ëllëg da nga koy jël nga tegaat ko ñëpp gis ko man damay man ci preuve laay dox ma laaj la benn affaire léegi sëriñ bi toog daan na ci TikTok wala mu teg ci YouTube waat ci yàlla. waat ci sëriñ bam yaakaar daan na lii ku ko bind ak lii ak lii nga sangoo ko wala nangam ak nangam di nga am résultat te loolu dina la bàyyi waaye léegi est-ce ñëpp ñoo am est-ce que ñëpp ñoo bokkale rab. déedéet waaw est-ce que léegi sangat gi ngay digle. est-ce que ñoom ñëpp la seen sangat bëgg bëgg loolu. am na ci rab yoo xam ne rab yi cosaan la. Hmm. bul fàtte ne loolu du sangat du sarax. Hmm. mbir dimension xàmm la. Hmm. fu nga jël ay soow wala meew wala deret dem di ko neexalee géej hmm. yow muy joxe ci YouTube bi wala ci TikTok bi ne ko bind lii nangam amee rab bi lii moo koy dindi ka yore ka rab ka yor rabi cosaan loolu dina ko de. Hmm? dafa yor beneen rab encore. Hmm. muy rabu jullit. kooku itam loolu dina ko de kooku ci cadre sarax la. kooku cadre sarax léegi nag maanaam sëriñ si dañoo ñëw gëm loo ñu ne lépp ñaan la. te alors que ne lépp du ñaan. léegi nit ki nga xam ne day xëccoo bëgg benn affaire war koo xëccoo ci bis mën naa la jox benn affaire. foofu ñaan amu fa parce que képp ki xëccoo ak xëccoo bu lu mu mën di doon. Mm. foofu wàllum sarax la. Mm. nit dina bëgg dara di ko xëccoo. Mm. ab sëriñ na la lii su ma la ci ñaanalee nga gis ci résultat. te alors que ne lépp du ñaan foofu wàllum xëccoo la. wàllum moo fay gañe. moo fay gañe wàllum ñaan. Euh, léegi nag ba tey. Hmm. ci wàllum farab loolu nit noonu nit ki amee lu ñuy wax faru rab. Hmm, hmm, faru rab góor a koy am. ah faru rab jigéen moo koy am léegi caru rab góor moo koy am. Ah. maanaam day yow lépp loo yor mu tasaaroo. ku la dig dara war la ko jox du la ko jox. foo am rendez ñu fausse rendez ba. lépp loo sabab ba commencé ko ba war koo yeggal loolu du mujj yegg. loolu la faru rab loolu la caru rab di def. faru rab moom mooy nekk sa jëkkër yow yow ku jigéen gi hmm. képp ku ñëw jëla ngoro mu dàq ko sëy boo dugg tas à chaque fois sa bopp bi dafay mett booy dox dangay mel ni ku miir hmm. waaye am na ci yoo xam ne liggéey la waaye gis buñ la liggéeyalee wala nga sentir ne liggéey mi ngi ci yow hmm. fotol sa loxo bi nga yónnee ma sa ñaari fotol loxo yi barki alquranul karim dinaa la wax kan moo la liggéey. d' accord ba tey sëriñ bi euh, suñu jugee foofu euh, yaa xam naa ne li ñu mayoon si waxtu xanaa daanaka dañ koy xaw a kii rek dañ ko beneen yoon léegi looy wax ñi nga xam ne ñoo nekk di topp Ousmane Sonko parce que teg na candidat am nee na Bassirou Diomaye Faye la bëgg ñëpp dem ànd ak moom daal koy loo gis si Bassirou Diomaye Faye. alhamdulilah xam nga yàlla suñu borom subhanahu wa taala dafay sàkku nit. Hmm. mu doon ku gën ci yow. waaye xam nga réew mi waruñoo tànnal seen bopp ci guddiyuntoon li ah. nañ jël lépp jox ko yàlla ne yàlla nga tànnal ñu ko gën ci ñun bu dee moom moo gën ci ñun yàlla na ko fi yàlla teg bu dee gënal ci ñun yàlla bu ko yàlla fal mm-hmm. dama yaakaar loolu mooy ñaan xaasatan mm-hmm. nga xam ne moom la mag ñëpp di ñaanlu mm-hmm. ki gën ci ñun yàlla nañu ko yàlla indil ki nga xam ne gënal ci ñun yàlla mu bañ fal mu bañ a fal su ma fiy ñëwaat incha allah tax naa ci yàlla. ñu ngi leen di jaajëfal. di nuyu di sant yàlla di jullu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan ñëpp am jàmm yàlla senegal Sénégal sax si jàmm bismillah.